tey dañuy jóge waat wax nañ ci mbër yëpp tey ñu ngi ñëm nag si beneen cadre boo xam ne tey comme ñun journaliste yi nekk tey ci làmb tey saakees amoon na fi problème walla ay àndandoo saakees amoon na fi problème ak kenn ku nekk ci làmb di wax muy Modou mbay problème boobu nan la demee woon saa. Modou Mbaye Modou Mbaye da koo bare rek <laughs> sama nattu la peut euh, la boo xamante ni man yëgu ti nu tinu ma wóoru nag du ma jugé mukk ni am na walla am. moom moo wax laaj naa booy te booy ne wax dëgg yàlla defuñu ko dara am na nag comme ci leen saaganteel xam nga tamit mm, moom laa ko saa kon saa su ne dinaa ko sa papa dégg na lu ne ci làmb te da koo muñ munoo ñëw nga ne chaque jour day neex bu ko neexee bu ko nakkaree xam na baax li ma koy wax nit ñuy dundee làmb liy neex ak liy métti moom mi rapporté noonu la koy dundee te di nga toog dégg Modou mbay mbër bi la àndal du fi ñëw du dëgg kon tey mbër bi tamit bu amul ci moom confiance du nangu ma ko mu abseté ko loolu day am ci làmb mais na abseté leneen te li gën a métti ngi ñëw dina ko daj te mun naa daj ak man jékki-jékki ma mere ko ne ko pan are moo xam sama yoon néew ci pare fu ñu mujj ñu mujj fa mais du tey sama nit la sama xarit la dañuy déggante fu ñu fu dajee tamit xam nga jàmm lañ sekk wax dëgg yàlla dara ñaawul mais man li ma ko wax rek moo ci nekk nee naa ko bul bul bul am leen la métti rek nga annoncé ko parce que man dèjà man wutal amoon naa cay noonu te defuma waxuma tinuma man loolu moom ci métti nit ñëw na fi bañ ci xuloo ci sax mënuma waaw parce que man booy kilifa la nag mag la mënuma man de jigéen def Modou mbay moo tax ma ñaanal boo ñaar ma ne ko léegi yow góor gi lan moo leen yow def nañ ko mun naa ah, dama jàpp ni bu ñu ko deflu woon la ko wax ma ne ko man de jàpp naa ni nga wax li la wóor wala nga gis sa bët moo gënoon ngay dégg di def mënuma loolu amul ma ne ko ah man de suma na la amul léegi yow la ngay def munuma bal ma manako dit manako gis nga nit man pour man da ngay dugg sa yon nek ma magum jëm nga yaangi ngi sa course ci wéet mais bu nga fexé ba nit boy def da ngay def lo wóor munuma man de ci la la mere won manako de continue lima ci mere ndax ki nga mere deful waxul yegul tinut té lajal Modou mbay man ma yëkëti sama téléphone woko nako ndax limay dégg dëgg la Baye ndjay mu na ma doy séré bay la àndoon bay moko wass ci téléphone manako boy limay deg deug la munu mu wa man de sa boy ñoma dañ doon door a man de deug yalla yonuma ci kenn ci yow te xam nga ni yow man duma la yónni mukk lay lor bu fekke lool amna nak ma ngi jéggelu baaxa baaxa baax kon man defe naa man lima lima war def ndax munu moon dem kërëm te bo fekk na man guddi gi dama naatu waaw deug la parce que lool la Modou wax parce que Modou it ñu ne caisse la waye dafa ñew ci open de presse bi gars yi koy àndoon ak saakees nee na mbër yi ànd ak saakees boobu li ñuy wax naan booy ñaa mbëru géwél yi la te moom mu ngi war a bëre ak booy ñaa loolu moo indi woon tension bi mu am moom it loolu la expliqué woon plateau 2S ñu seetaan ko waaye làmb la rek mooy li ko saakees wax Père Bécaye amul lu mu dajul ci làmb te moom itam tey jii ni ñun ñii di ñëw ci làmb ni yëpp man mii bokk na man sama idole ñi may roy pour wax ak xool ni moom ni muy doxee ci làmb moo rafet moo war a mel noonu tey mais ndaanaan la tey ci làmb mooy li ko saakees wax rek bu ñuy gaaw a dénoncé yenn yi ñun ñëpp ñu jàpp jéem a defar làmb noonu la moo du ñu ngi lay nuyu au passage di la wax saa ngi noonu dégg nga lim lay wax moom sa waay la rek mais saa it du tere dañuy waxtaan duñ bàyyi ba léegi parce ñu si actualité actuellement